asiru malabari nasiru wazanani hunakasiru asiru السلام عليكم بكم يا من بكت لودي عندك ينتي جورنال اوفيسيال بو ماغول سيرين توبا بيغا خامني كوميسيون كولتور كوميونيكاسيون ديبارتمان انتيك بو امادو غي نجاي دي لن مايلا غن فيس تي خيباري بوكو نا تي توك نيميكو بريزيدنت بلاي واد نيون في سي ار سي سيرين سيدي مختار مباكي بوكو نا تي كاد يو خامني كون ييكتي نكو ياسل نجيبلم وايت فيسل نيكون مبيبتام ييب موديو كو ماتال لولي بوكو نا تي لامي ريتشو سيرين باشيرو مباكي عبد الخادر موم تي بوفام مو تونتول سيرين سيدي مختار مباكي واخ نيكون موم عبد الله واد نا خرم دال ني ليپ لوغا خامني كون سيرين بي سانت نكو ديف نكو راه تي dolli sax mi ngi rafetlu bu baax a baax jëfe ji nga xam ne kon jëfe ne ko ndigal wut jàmm ci biir Sénégal Serigne Cheikh Béthio Thioune indi ay nag yu bari ci biir Touba Serigne Khadim Thioune di doomam daal di fësal ne kon danaan taxawal lu gën ngaa néew juróom fukki waañ ak juróom daal jox yi bernde du am xaj ak seen danañ ko déglu ci biir xibaar yi fekk na ay doomu aadama yu dëkk fale ci Italie rawati di ay tubaab ñoom ñëpp daal daanaka mel na ni euh, màggal gi ñor na leen indi nañu i tàbbi ci màggalu Serigne Touba bi euh, ku mel ne docteur Paolo cosaano fale ci Bergamo danañ leen bàyyi xel lii xibaar li bu ci jeexee dañ ko tàbbaleek li nga xam ni kon moom mooy euh, ganu xibaar yi Serigne Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké lay doon mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu salaamaaleykum kon mu nek journal officiel bi nga xamni kon commission culture et communication bu comité d'organisation te Serigne Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma jiite ko mu nek kon ben département intique Amadou Gueye Ndiaye jiite ko di ay xibar yu len di jox sa su journal officiel ngeen man ko am ci 3W magal tiré touba ak chaîne IP magal TV point l' Cheikh Tidiane Cissé moo nekk ci caméra bi Mamadou Moustapha Mbaye ci kàddu gi ni len ko waxee won président Abdoulaye Wade kon dik na ci dëkk bu sel bi mom nak wax na la indi weesul màggalu Serigne Touba ne yàgg dafay ñëw wax ci dolli nee na kon dafa ñëw ngir yeesal njëbbalam ci si di Mokhtar Mbacké xalifa général des Mourides waaye it mi ngi wax ne kon ay mbébatam yëpp matal ko ci dëkk bu sell bi ñu déglu président Abdoulaye Wade. yi nee ñu ngi nuyu waa Touba. nee nuyoo bi bàyyiwul kenn. nee mu dellu si rek ci sëriñ bi. xamal leen ni. nee pour mu xamal leen ni. lii ma def tey. nee lii mu def tey. ba ma ko dooree di ko def fàtte naa ko. nee ba mu dooree di def lii fàtte na ko. nee ndax yàgg. Euh, màggal gi bu jubsee. nee màggal gi bu jubsee. xalif général des mourides daf may jox bés. nee xalif général ku lu murit daf koy jox bés. pour ma ñëw. ne pour mu ñëw fii. loolu moo tax ma ñëw fii. ne loolu moo tax mu ñëw fii. nuyu ko. ne mu ñëw nuyu ko. sargal ko. sargal ko. di ko gërëm. ne di ko gërëm. ci ñaan yi ñu ñaanal. ne ci ñaan yi ñu ñaanal. te ma yëg ko. mu yëg ko. gërëm. ne maa gërëm. ci liggéey bi muy liggéey ci Touba. ci liggéey bi muy liggéey ci biir Touba. ak ci Sénégal. ak am tuuti lu ma naqari. mais xaw am tuuti lu ko naqari. ndax ma dooroon ci Touba dama ko jot la yeggale. mais liggéey bi mu tàmbali ci Touba da ko jot yeggale. waaye nag yàlla moo yàlla moo ko doxale noonu. waaye nag yàlla nag moo ko doxale noonu. man nangu. nee man nangu. li nga xam ni yàlla moom moo ko dogal. man nangu li nga xam ni yàlla moom nag. donc du loolu moo ma fi indi. nee du loolu moo fi indi. waaye du ma fi noppee ñëw. nag. ndax dama fi daan ñëw. ndax dama fi daan ñëw. booba du ma président du ma dara. booba du ma président du ma dara. mais li ma fi indi tey daal moo di. màggal gi. màggal gi moo ma fi indi. sëriñ bi moo ma may. nee sëriñ bi moo ko may. ma ñëw. ma ñëw. tey di sama bés. tey di sama bés. ci màggal gi. sama mbooloo yëpp a ngi fi. nee mbooloo mi yëpp a ngi fi nag. nee am nga dootam. ay xaritam. sama collaborateur politique yëpp. nee ñi ngi àndal ci politique bi yëpp. nee ñi ngi àndal moom. ndax ñu ci ëpp yëpp nag. nee li ci ëpp lépp nag. sëriñ bi la ya lañu yaakaar. nee sëriñ bi la ñu yaakaar. ni ma ko yaakaar. nee ni mu yaakaare sëriñ bi la ko ñoo ñu yaakaare. Euh, ma yokk ci. nee ma yokk ci. ñëw Touba moom. ñëw Touba moom. ci ñëpp la baax. asama ci muy. asama ci mu am muy. fi ñaan. nee ñëw fi Touba ñaan. yàlla la li la li bëgg. Serigne Cheikh Bassirou Mbacke Abdoul Khadr mooy ki nga xam ni kon moo yëkkati ay kaddu ci turu Serigne Sidi Mokhtar Mbacke jébal ko président Abdoulaye Wade bokk na ca nga xam ni kon wax na ko nekkoon moom Abdoulaye Wade lépp lu nga xam ne euh, Serigne bi santoon na ko def na ko rax ci dolli mi ngi rafetlu bu baax a baax jéego yi nga xam ni mi koy def ndaxte daf ko santoon mu fexe ba jàmm am ci biir Sénégal gis na jéego yam coy def ba tax na kon mi ngi koy rafetlu ñu déglu Serigne Cheikh Bassirou Mbacke Abdoul Khadr. ndax julli ko def. danañ defaat ko. kon bam moom. kon bamtu moom. bu dee lu baax. bu lu baax. ayut ayut. kon nag sëriñ bi nee na. kon nag bi nee na. ñu ngi lay sant bu baax. ñu ngi lay sant bu baax. di la gërëm. di la gërëm. ci nim la ko daa waxee ci nim la ko daa waxee ndax ba fi nekkee. ndax ba nga fi nekkee. jiite réew mi. jiite réew mi. lépp loo xam ne. lépp loo xam ne. mas na la ko wax. mas na la ko wax. def nga ko na mu ko bëgg. loolu nag. ne loolu nag. mënee su ko fàtte. mënee su ko fàtte. kon nag mi ngi lay sant bu baax kon mi ngi lay ndax Serigne Touba. ndax Serigne Touba. képp ku mu yar. képp ku yar. wala yar. ku nga dégg am jàngale. wala nga dégg am doo doo doo jëf. doo nëbbu jëf. doo weddi njëkk doo weddi njëkk kon nag liñ ko li nga jëf ci yoon bi kon li nga jëf ci yoon bi jëfal ko Serigne Touba jëfal kenn fàttewu kenn fàttewu moom nag moo ci jiitu nee moom nag moo ci jiitu ndax mooy jëmmi Serigne Touba ndax kon nag mi lay sant bu baax kon mi lay sant bu baax te lay gërëm te lay gërëm Serigne Cheikh Bassirou moom mee moom mooy nekk suñu ganu xibaar ci ñaareelu xaaju xibaar yi Serigne Cheikh Béthio Thioune moom mi xam ni kon moom nga nekk fële ca Janatul Mahwa indi naa yi nag yu bare bari di Cheikhu Serigne nag yow yee nit ki démb lan dugg ci dëkk bu sell bi bari nañ lool takku nañu waaye nag nee na mooy fexe ba togg ay ñam yu neex te bari daal di koy jox ñi nga xam ni kon ñooy gani Serigne Touba yi Serigne Khadim Thioune di euh, taawam ndax ci dolli di député à l'Assemblée nationale wax na daan taxawal juróom fukki waañ ak juróom lépp ngir bende nu déglu Serigne Khadim Thioune li nga xam ne dénk na ko Serigne Baaxee Dia. liñ ci dëxëñ lépp bari na mel na ni bernde képp ko tax a jóg lu ngeen fi gis nu mu toll. sëñ ba ci moom jubluwu ci lu dul la ko sëriñ saali waxoon ne ko def naa sama màggal muy sag màggal jubluwu ci lu dul la ko sëriñ saali waxoon mu di ko def sancaan yi lim nañu ko ren egg nañ ci juróom fukki wàññi yoo xam ni li wër Touba samp nañu ko fa bu leen fàtte ngaabu gi nga xam ni sëñ bi bërki démb rek mi ngi fàttali waa Sénégal képp koo xam ni jóge nga fu mu mën a doon boo rombee ngaabu bernde yaa nga fa boo wàccee danañu la bernde di nga bëgg tàbbi ci màggal waaw mbokk yi kon xaaj bu njëkk bi jeex nañu defam pàttali président Abdoulaye Wade ñëwoon fii ci Touba siyaare si Serigne Sidi Mokhtar Mbacke daal di yeesal njëbbalam fësalit ay mbébétam yu nga xam ne namoon na ko am ci Sénégal wala rawati fii ci Touba te mujjul yàgg Serigne Cheikh Bassirou Mbacke Abdoul Khadr wax ne kon moom Abdoulaye Wade na xelam dal ne lépp lu nga xam ne Serigne Sidi Mokhtar santoon na ko def na ko rax ci dolli ba ñuy xamante raw na ñaar fukki at Serigne Cheikh Béthio Thioune indi fi ay nag fii ci Touba ni mu ko daan defee ñi nga xam ne kon ñoom ñooy ay taalibeem taxawal juróom fukki wàññ ak juróom nar a togg ay ñam yu bari te lew waaye te ñam yu bari te neex ñu daal di koy jox ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, màggal si te du am xaj ak seen màggal gi am na italien yoo xam ne ñoom it def nañu seenub délégation indi seenub tab bi ñoom nag lanu nam weesuwul euh, fexe ba fësal seen euh, ngëm sëriñ Touba dégg ngeen la nga xam ne kon wax nañ ko ci ay kàddu

kon nag sëriñ bi nee na. kon nag sëriñ bi nee na. ngi lay sant bu baax. mi ngi lay sant bu baax. di la gërëm. di la gërëm. ci nim la ko daa waxee rek. ci nim la ko daa waxee rek. ndax ba fi nekkee. ndax ba fi nekkee. jiite réew lépp loo xam ne. lépp loo xam ne. mas na la ko wax. mas na la ko def nga ko na bëgg. def na ko na bëgg. loolu nag. ne loolu nag. mënee su koo fàtte. mënee su koo fàtte. kon nag mi ngi lay sant bu baax. ndax Serigne tuba ndax Serigne képp ku yar. képp ku mu yem. wala ku mu yar. ku mu yar. wala nga dégg am jàngale. wala doo doo doo nëbbu jëf. doo nëbbu jëf. doo kon nag liñ ko liñ li nga jëf ci yoon bi. kon li nga jëf jëfal ko Serigne Touba. jëfal ko Serigne Touba. kenn fàttewu kenn fàttewu moom nag moo ci jiitu. nee moom nag moo ci jiitu. ndax mooy jëmmi Serigne Touba. ndax mooy jëmmi kon nag mi ngi lay sant bu baax. kon mi ngi lay sant bu baax. te lay gërëm. te lay xamal ne itam. te lay xamal ne it. nam la ko daa waxee rek nam la ko daa waxee rek war ngaa sant yàlla bu war ngaa sant yàlla bu baax ndax Serigne Touba ndax Serigne Touba dafa am aaya boo xam ne dafa am aaya boo xam ne da ko daa firee da ko daa firee wa tilka al ayyaamu nudaawiluhaa bayna naasi loolu mooy ne loolu mooy lépp loo xam ne lépp loo xam ne agsi la ci say loxo yegsi na ci say loxo na nga ci def la nga ci war a def na nga ci def la nga ci war a def loolu nag ne loolu nag. kon nag yàlla defal na la ko. kon yàlla defal na la ko. ba bi nga fi toogee. ba bi nga fi toogee. li nga fi war a def. li def. def nga ko. def nga ko. ba mat sëkk. ñu ngi lay sant bu baax. bu baax la Ablaye. bu baax. lam la waxoon itam. lam la waxoon itam. ci digal la jàmm. ci digal la jàmm. gis na ne jëfe nga ko. gis na ne jëfe ko. kon soññaatu la la ko. dala ci sant. dala ci sant. ndax yéen. képp ku jëfal ko. yàlla dana la teral yàlla dana la teral ba faaw ba faaw kon nag kon nag ñu ngi lay sant bu baax mi ngi lay sant bu baax lay xamal ne itam mi ngi lay xamal ne itam musulaa fàtte musulaa fàtte la fàtte bu mu te du la fàtte bu mu kon ñu ngi lay sant bu baax kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm te di la gërëm li mu jàpp ci yow nag li mu jàpp ci yow nag xam nga ko xam nga ko adduna sëpp xam na adduna sëpp xam na sëriñ bi nee na ba mu la xamee ba tey tey après ñaar fukki boo jiitee ko réew boo jiitee ko réew bi sax nee na ba fii nii tam sa diggam moom jàpp nga ko rafetal nga ko jërë ngeen jëf.

Tidiane Cissé moo nekkoon ci caméra bi Mamadou Moustapha Mbaye ci kàddu gi mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu asiru malabari nasiru wazanadani munakasiru asiru malabari من علي معهم يزيد شكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نزولي وتايدي ويزيل الرداء من الواسع الوهاب فهو النسيم